de vous retrouver sur la chaîne euh, leader Sénégal 7 TV donc ñu am mbégte euh, toog fii ginnaaw démb également bi ñu amee mbégte toog fii ak suñu grand euh, ci wàllu taskatu xabaar le grand journaliste Ben Makhtar Diop ngir mun a décortiquer ensemble l'affaire Pape Alé ak euh, d'autres sujets euh, d'actualité te également noonu ne lañ koy defee ak suñu invité di suñu grand également euh, di Momar Ndao di suñu président ñu ñëpp nous les consommateurs grands maa man mbégte une fois de plus di la recevoir sama plateau di la nuyu te di la bàyyi nga nuyoo waaw soxna Penda maa ngi lay nuyu. di nuyu ñi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew yëpp seen télévision. Mhm. donc à rappeler que ni euh, vous êtes ingénieur euh, commercial sénégalais expert en consumériste et spécialiste en technologie de l'information de la communication. Mhm. donc euh, tey nag grand. balaa ñuy sore déjà sa appréciation par rapport ak baisse des denrées bi nga xamante ni président jotoon na waxtaan ak ñi nga xamante ni. ñoom ñooy gouvernement bi euh, ci teewaayu élimaanu di Amadou Ba donc nag ñi ki samedi euh, ñu ni euh, lii di arrêté yi par rapport ak baisse des denrées waaw mooy dañuy am satisfaction parce que bu fekkee ne da laaj dara ñu jox la ko mhm. da ngay kontaan ndax dañ gis ne consommateurs yi dañoo sonn trop ci ci njëg yu cher yi ci Sénégal mhm. c'est vrai fu nekk mun nañu wax ne àddina bi yëpp la dafa am côté yoo xam ne ay dafa amoon ay exagération mm-hmm. léegi nag bi loolu amee ñun ci lañ saisir président de la république ne ko daal na na gestu consommateur yi mm-hmm. euh, loolu moo waral concertation yi mm-hmm. ba tax ñu yegg si tey ci ay wàññi yu am solo yoo xam ne dafa concerné dund gi nga xam ne moom la ñuy lekk chaque jour mooy trop produit de première nécessité yi plus yeneen service yu mel ni ay location yooyu yëpp ak lu mel ni euh, kii scolaire yi mhm. yëpp daal nekk loo xam ni mhm. boo ko xaymaa daal wàññi yu am solo la pour ki nga xam ne moom mooy sénégalais bi. d' accord alors à rappeler que hmm. ni huile de palme raffinée bi maintenant c' est à 1200 francs CFA par litre. Hmm. Euh, sucre bi également 575 par kilogramme riz ordinaire indien et pakistanais également 325 par kilogramme lait d' végétale. 2750 hmm. francs par kilogramme. Euh, 100 l'unité. Euh, tablette œuf 2800 francs CFA. oignon Euh, oignon importé 500 francs pomme de terre locale 400 francs euh, bëri na yàpp bi tamit ndawal gi wàññi nañ ko 3600 francs CFA par kilogramme euh, viande de mouton 4300 francs CFA mais problème bi mooy yi lépp dogal dañ pour l'instant Dakar kese la concerné gum waaw loolu nit ñu bari nag dañuy def erreur dogal bi Sénégal yëpp la même boo xoolee euh, régions yi commencé nañ à partir de tey di def li ñuy wax conseil régional de la consommation ndax dañ war a calculer transport bi si njëg yi nga xam ne fixé nañ ko ndax xam nga jëlee fii marchandise yóbbu ko ba Kolda wala yóbbu ko ba Kaolack da ngay koy teg ci ay camions yoo xam dañ koy fay loolu moo tax suñu joxee prix Dakar yi dañuy calculer prix yi ci région yi loolu nag dafa am lu ñuy wax conseil régional de la consommation mm-hmm. gouverneur euh, donc euh, ci bu dëkk ba moo koy jiite mm-hmm. bokk ci chef du service régional bokk ci association consommateurs yi mm-hmm. bokk ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy acteurs yi bu dee ay commerçant lañ wala ay ñuy def ay service su boobaa nag léegi ñu tënk nag ni bii mooy produit prix bi nga xam ne moom mooy dox ci région bi je pense que daal ci biir semaine bi yaakaar naa ne daal conseil régionaux yëpp daal dinañ war a a daje alors ci loolu euh, mois d' octobre euh, ñii di euh, membre FMI yi bañ fi teewee. Mhm. donc ci kàddu yi nga xam yëkkate woon nañ ko ci concertation bi nga xamante ne amoon nañ ko ci teewaayu ba tey président ak it membre du gouvernement bi li ñu xamle woon moo di donte ni àdduna yëpp dañoo yëg instant bi crise mhm. bi ñeel wàllu Covid mais également guerre Russie Ukraine bi. terewul nag euh, réew mel Sénégal war na war a mën a an indi ay ay ay ay ay mesures yu am am solo. Mhm. Euh, dox ay jéego par rapport ak euh, denrée de première nécessité yi ci loolu nag ñu xamle woon ni. Mhm. les familles vulnérables war nañ def état war na def kéem kàttanam. ba su mhm. fekkee ni sax wàññiwuñu pour ñëpp. ne serait-ce que pour les familles vulnérables ñu wàññil leen ko donc loolu moo nag bi ñu njëkkee annoncé mesure bi ni pour l'instant Dakar rek la concerné bëri ñu nga xamante ni ils se sont posé la question à savoir pourquoi pas pour toutes les régions. waaw effectivement euh, euh, wàññi moom c'est pour toutes les régions parce que toutes choses égales égales par ailleurs les citoyens doivent être soumis aux mêmes situations maanaam daal xàjj ak seen warul nekk loo xam ne dañ koy def muy am ñoo xam ne da leen di lool loolu moo tax euh, wàññi bi moom pour région yëpp la pour Sénégal yëpp la dafa am rek comme ni ma la ko waxee procédure ndax euh, boo fixé prix bi nga xam ne mooy base bi maanaam fii la port bi nekk képp koo xam da ngay jëlee fii marchandise ci port bi yóbbu ko beneen place dañuy calculer prix transport bi mm. loolu rek la mais sinon ñëpp ñoo bokk ci li nga xam ne moom mooy wàññi bi mais ci loolu gis nañu ni ki dem ba jëriñ bi ñu nekk wàllu commerce ginnaaw ba ñu publier gis nañu ni coow dox na seen diggante ak way commerçant yi ñenn ci ñoom bokk mm-hmm. ci Dakar ba sax dañoo mujjee saisir ay marchandises. Mm-hmm. li ko waral moo di ñoom nee dañoo pare woon seen stock investir seen xaalis donc waruñu war a mun a wàññi parce que boobaa ñoom dañ ci perte. waa xam nga loolu lay commerçant la te loolu c'est vraiment désolé ay commercant yoo xam ne ñoo bokk ci réunion yi pendant un mois ñuy discuté waxuñ loolu ba léegi ñu ne ñu ngi koy doog wax mooy ne taxawul mooy benn concertation amoon na ci ay représentants exactement te bu bu bu bu yokk amee dañu xëy rek yokk lu ñu wax ne amoon naa kii euh, stock naa ko jaay prix prix nor prix ancien ba mu jeex ma doog a yokk dañ ko def te il faut savoir que bi nga xam ne dañ annoncé ne dañuy wàññi ba tey commerçant yu bari dañoo importé wu loon pour xaar ba xam prix yu bees yi ce qui fait que actuellement stock yi ñuy wax presque amul ndax yëpp jaay nañ ko donc kon loolu waxi vraiment euh, ñu ngi koy wooyee ci ci ci tubaab mooy mauvaise foi la daal nekkut loo xam ne lu ñu war a lu ñu war a jël en compte la xam nañ ne bi seen biir cest euh, euh, euh, ñi nga xamante ni ñooy grossiste yi ñi ñoom moo cher moo tax ñu mën a wàññeeku mais ci grossiste également grossiste tamit joxuñ ko baaraamatuma état xam nga léegi li nga xam ne moom moo nekk mooy arrêté yii ñu jël dañ wax yow grossiste yow importateur lañ commencé sax yow bu dee da ngaa importé wala yow producteur nangam nga war a jaayee grossiste bi war koo jëndee ci yow nangam jaay ko demi-grossiste bi nangam détaillant bi jëndee ko ci kooku nangam kon tey détaillant mënuloo lay ne way dañ maa jaay lu seer parce que bu ñu ko bëggee jaay lu seer moom prix bi nga xam ne moom la ko war a jëndee jox nañ ko ko xam na ko kon bu ñu ko ko jëndee su ko ko gars loo xam ne prix boobu la mu bañ woote ci numéro ver bi 800 maanaam 8 ak ñaari 0 80 77 77. mais mais mais grand maman daal laa bëri na comme li nga wax nit am na détaillants yu nga xamante ni njëg yi sax donte ni wàññi nañ ko te pour ñoom la euh, xamuñu sax ndax njëg yi euh, maanaam euh, lu ci nekk ñaata lañ ko war a ñaata lañ ko war mën a jaayee parce que ñi ngi distribuer ay flyers ci ay boutiques mais na boutique yu nga xam jotaguñu seen flyers. waaw il faut dire que. man sama boutique koñ moom seen flyers xamaguñu sax njëg yi ñaata la. non donc loolu boo. non yi moom xamaguñu dafa ñaata la moom loolu wax ju yàqu la. parce que ñoom dañu am organisation dañu am union des boutiquiers détaillants du Sénégal am nañ ay organisation yoo xam ne man mi maa fexe ba ñoom ñu bokk ci concertation bi invité leen di ñëw ñu ñëw teewal fa tous les détaillants du Sénégal kon mënuñoo lay ne yëguñ ko télévision yeeg rajo yeeg site internet yeeg xibaar yaa ngi daw suba mi di ngoon ne prix yu bees yi lii la kon ñu wax yëguñ ko. te je veux bu fekkee dañ ko yëg tey te te bañ ko ba tey loolu day mel comme yënguñu pay. déedéet dafa am benn adage buy wax ne nemo consentur ignorare legem kenn nul n'est censé ignorer la loi maanaam mënoo jël sens interdit ñu ne la fii sens interdit nga ne xaw ma ko woon munoo munoo munoo rey nit ñu ne la yoon da koy tere nga ne xaw ma ko woon maanaam yoon moom yoon la rek comme dégg nañ ni ñu ngi wax depuis un mois ñu ngi wax ne dañuy wàññi njëg yi ñoom war nañoo tàllal seeni nopp déglu njëg yu bees yi lan la télévision yaa ngi koy wax rajo yaa ngi koy wax. xanaa ñoom seetaanuñ télé dugguñu internet xooluñ TikTok xooluñ dara ci li nga xam ne mooy mooy mooy information télévision yeeg ki nga xam ne moo am ci euh, téléphone yeeg nit ñi niñ koy waxeek xanaa kon ñoom dëkkuñ ci dëkk bi xanaa. mais ci concertation yi. Mm-hmm. ndax am tamit ci waxtaan bi euh, jëloon ngeen en compte euh, ñi nga xamante ni stocké woon nañu déjà seen ay produits naka la ñuy def dans ce cas là pour génn ki tamit cee perte. waaw ñi nga xamante ne bii dañoo wax ne dañoo stocké. xam nga état ci boppam dafa jàpp ne kenn warul jaay perte loolu c'est un principe de base soo jaayee perte sax dañ état day dal sa ko ndax booy jaay perte mooy ne yaa ngi bëgg a perte loo ñeneen ñi ndax njëg gi ngay jaayee mooy gën a néew ki nga xam ne dafa am doole. Ah. te dafa dafa jaayar normal. Mm-hmm. su boobaa kooku day tëj. état ci boppam moom moo ne képp ku nar a perte man état man may ñëw taxaw. bu fekkee ne wàññi day am day am calcul bonus malus yooyu yëpp dañ koy calculer. Mm. su ko defee tey jii xanaa kon ñoom bi nga xamee ne dañuy yokk prix te yokk nañ fi prix lu tax ñoom remboursé wuñ kon ñoom lañ amoon différence bi nga xam ne moom moo am yow nga jënde cent franc ñu ne yokk nañ ko cent vingt parce que léegi cent dix lay jar kon yow dix yooyu nga xam ne am nga ko xanaa kon léegi bu ñu yokkee yow da nga dañ koy calculer sa stock bi yëpp. nga ah, remboursé waaw yokkee woon ne kaas ñu woon ci seen marchand. waaw jeex na mu ngoog loolu rek la c'est comme léegi ñoom yooyu ñuy wax yëpp ay lay la yoo xam ne taxawul arrêté bi bi mu génnee may nañ leen un jour d'information yoo xam ne kenn waxu leen dara un ou deux jours sax dañu xaar ba lundi ñu doog a contrôler te arrêté bi génn na samedi samedi ak dimanche yëpp ñu ñu ñu kii leen ñu ñu bàyyi leen pour ne dañ leen di informer. Mm-hmm. te loolu yëpp amu ci waru cee am sax nekkul loolu amul ne damay génne benn loi ne damay xaar ñu informer non. mais ci kaw gunge boobu nga junj léegi la man yëguma ci dara. mais ci kaw gunge boobu nga junj léegi ne état du seetaan euh, jaaykat bi. Euh, mhm. di jënd produit ba pare di ci perte. ani tey jii ci concertation ci biir waxtaan bi. Mhm. Euh, lan la ci état fas yéene def. pour nga xamante parce que gis nañu ni ki dem ñu ngi saisir seen ay marchandises pour ñi nga xamante ne. fas yéene woo ñoo jëfee ak ndogal bi. waaw xam nga dafa am ay situation yoo xam ne nit ki day fekk muy jaay normal xam nga kuy jaay normal nga xam ne yow teg nga bénéfice bu normal. su fekkee ne njëg yi dañ koo bëgg a wàññi yow dañuy xool nan nan la li nga xam ne moom ngay jënd ñuy fexe ba nga di ko jënd prix boo xam ne moo gën a néew pour que ñu mun laa wax ne la wàññee su fekkee loo xam ne da koy jëndee ci koo xam ne kooku daf koo seeral d'une manière anormale te teg ko ci yoon ñu ne kooku yow wàññil teg ko ci yoon su ko tegee ci yoon te fekk moom tam fa mu koy jëlee foofu tegu na ci yoon ba nga xam ne léegi ñépp ñu ngi jaay normal état ne ah comme ñoom ñu ngi jaay normal te man état maane bu kenn jaay perte kon léegi man danaa teggi dara loo xam ne moo daan tax mu seer su dee lu ñuy importer la ñu ne droit de douane la état ne man kat damay dindi droit de douane su ma dindee droit de douane bi njëgi wàcc def nañ ko ci produit bu mel ni par exemple blé bi ñu dindee droit de douane yi terewul mu seer ñu ne comme blé bi dañ koy jël dëbb ko mu nekk farin te farine bi moom mooy ba tey li seer li nañ dindi li ñuy wax TVA bi ñu dindi fekk dañoo njëkk a wàññi TVA bi def ko 5 pour cent mais demul ba tey mu seer état ne léegi jëlatuma TVA maanaam état jëlu ci droit de douane jëlu ci TVA te terewul njëg gi seer état ne comme loolu la pour bañ mu yokk ci ñeneen ni ndax maa leen aya jaay perte man état danaa génnee xaalis dugal ko pour li nga xam ne moom moo naroon a yéeg man ma gàdd ko moo tax boo xoolee ci li nga xam ne moom mooy farine beeg yooyu filière boobu def nañ ci ay quinze milliards yoo xam ne état moo ko gàddu pour bañ njëg yi yeeg kon kuy jaay normal su état di wàññi daf koy ñëw yenu li nga xam ne mooy. li ñu bu fekkee normal état jëfee ko parce que même maa ngi koy junj sax même maa effet ba ñëwee. waxuma ne loolu lañ sàkk si ñoom parce que xam ñu ngi doon junj sax état ni leen nañu wàññi taxi yi comme ni nga ko waxee ci yenn. ci yenn daan la jox Euh, même euh, infrastructure yi nga xamante ne amul noonu solo askan bi nañ ko jël éjecté ko ci li nga xamante ni moo di dund gi waaw ñoom FMI ñoom d'accorduñ loolu ñoom FMI dañ ne bu ñu subventionné waaw loolu la FMI wax état ne leen noonu ñun dañuy subventionné ndax suñu réew da suñuy consommateur dañoo new doole ndax état ne na li ñuy dugal ci xaalis pour prix électricité bi war a yëg bañ a yëg dafa ëpp mais ñoom xanaa ñoom jànguñu économie buñ buñ subventionné wul ba tax courant bi bañ a yegg su courant bi yegee ñiy produire fii ci réew mi seen production dootul concurrentiel su boobaa dañu nekk di importer ay yu ñu jógee bitim réew day daaneel réew kon ñoom ci seen bopp waruñoo jéem a pousse suñu réew yi ne buñ subventionné te ñoom ñuy subventionné da ngay xool ne par exemple day am ay surproduction de ay quatorze millions de tonnes de sucre dañ koy dañuy subventionné bu ko defee prix bi li muy jar au niveau international du correspondre ak li mu war a jar même seen réew bu ko defee ñu daaneel réew yi jàmbur yi ndax bu boobaa kuy defar suukar si réew yooyu par exemple sa réew dootul jarle ndax prix bi moo gën a yomb su ko defee nga daanule soo daanule amatuloo industrie bu boobaa li ñuy def mooy lan suñ jaayee suukar dix mille la kilo sax soo bëggee lekk suukar il faut nga nga fay dix mille parce que da koy importer donc ñun looloo tax ñu war a yi nga xam ne moom la ñu tubaab yi bugg a imposer looloo tax état ne non man damay subventionné mu indi de ay coow parce que ñoom dañ ne bu leen subventionné léegi nag. wàññi mën naa am bu leen subventionné dañoo teg ay dañoo teg ay proposition tegu yi ñu teg taxawut parce que subvention ba pare ne la bul bàyyi wàññi droit de douane droit droit yow état mooy subventionné nga ndax loo xam ne waa ji da ko waroon a fay nga ne ko bu ko fay man état maa koy fay loolu subvention ñu ne yooyu buñ ko def buñ deful loolu prix day yéeg yéegaay boo xamante ne bii dëkk bi dootul looloo tax yi nga xam ne moom la ay FMI ay banque mondiale di wax te ñoom seen i gars yi dàqu ñoo jàng de déedéet dàqu ñoo jàng su lañ sax mais déedéet dàqu ñoo jàng te ay politique de erreur réew mi fii économiste yu bëri également comme ni nga ko waxee léegi mhm. euh, ñoo nekk foofee ca FMI euh, mhm. dàq ñu ñu jàng ci économiste dañoo xarañ mhm. bëri na fi ay économistes yu nga xamante ni tamit ñoom bu fa yëkkati woon ay kàddu nii hausse des denrées bi teguñu ko fenn donte nag état dañu bëgg gëmloo que ni euh, crise mondiale ak yu ni mel moo ko waral. waa non xam nga ñun dañoo expliquer ne dafa am hausse yoo xam ne bitim réew la jógee ñuy jaaykatu mboq bi ci suuf ne ñu yokk prix bi ñu ngi ko lan la mun a guerre Ukraine xam nga kooku bokkul ça n'a absolument rien à voir de manière directe ak guerre Ukraine. mais la faute à mais la faute à ki nga xam ne mooy yokk ak ki nga xam ne moo ko moo ko seetaan mu yokk. non mais soo waxee am na yokk yu nga xamante ni concerné wu woon yenn secteurs yi et pourtant ñëpp ci profité yokk. waaw moom la faute mooy ñi nga xam ne ñoo yokk te teguñ ko ci yoon ak ñi nga xam ne ñoo leen seetaan ñu yokk te teguñ ko ci yoon donc ñi leen seetaan ñu yokk te teguñ ko ci yoon mooy état bi looloo taxoon ñun pendant pendant des mois on le ministre du commerce. ne moom deful arrêté nanguwul jël loolu moom moo indi lii yëpp tey ji mm-hmm. moom moo seetaan ba lépp a yokkandoo. mooy Assome Diatta waaw parce que bu nga xamaloon fii am na yi ñuy yokk te teguñ ko ci yoon dafa waroon commencé jël ay arrêté rëq seen digg gars yi eh, kii. Mm-hmm. mais boo toogee seetaan léegi maanaam amul benn produit boo xam ne yokkuñu ko su fekkee ne yokk la sax buñ tegu ci yoon loolu sax xel mën na ko nangu mais Sénégal mooy réew moo xam ne. Euh, dañoo seetaanoon commerçant yi ñu def lu leen neex. Mm-hmm. léegi nag loolu moo dakk fi mu ne nii état moo ne léegi seetaanatuma commerçant yi. Mm-hmm. donc mm-hmm. ci kaw bañ seetaan boobu ñu jël ay dogal tamit bokk na ci suivi bi li nga wax noonu sànq. exactement joxe ay numéro vert. mu mel ni euh, bi lépp yoon état euh, bàyyi na xel ci tout le temps yéen consommateurs yi li ñuy faral di di di kaas. mooy que dañ daan wax rek génne ay arrêté ni wàññi nañ. et force reste à la dañoo war a sàll ak dogal bi. mais ku mu neex nga toog sa boutique ñi man li ma doon jaay laa jaay ba te finalement doonu woon ter fenn te tamit souvent euh, population bi dañu am paresu jël numéro vert yi di wootee ka dénoncé k yooyu hmm. parce que suñu société moo ni mel des fois sax mun nga mun nga boole ni sax mu ne la euh, kii moo boole boutique ba boutique ba ca koñ ba mu créé ay ay mbir waaw mais numéro vert bi tamit euh, jàppoon ni peut-être waroon nañ ko mun a gën a def mu gën a léger mu gën a yomb ci ñenn ñi parce que boo gisee koo xamante ni euh, peut-être euh, ñu baama ci cadre bu jàngul. Mhm. ñu bëgg ko jox benn numéro ba guddee nu ni mel. Euh, bu waaw c'est-à-dire parce que en fait di mën di woote. plateforme électronique yi moom moo moo demee noonu plateforme électronique yi nga xamante ne bi moom la opérateur yi def ci à la disposition des structures yi bëgg am numéro vert. ñoom ñoom ñoo lay imposer numéro yooyu numéro bu commencé huit cent après teg leneen leneen leneen. mais mënoon nañ ko def sax ay numéro trois ou quatre chiffres mais numéro yooyu day dafa bariwul maanaam euh, effectivement li nga wax dëgg la mais numéro la boo xam ne ñuy woote téléphone moom te fi mu ne ni Sénégal ñëpp ay oote téléphone. Mm-hmm. ñi jàng ak ñi jàngut mën nañoo jàpp numéro bi. Mm-hmm. mais effectivement. waroon nañ mën a am numéro bu gën a gàtt loolu. jàpp na ni bi lépp yoon mm-hmm. ak euh, mesure ñu teg bokk na ci comme numéro bi nga junj léegi dina tax suivi bi jaar yoon. Ah. Euh, ñu bañ ko nemmeeku comme ni nga ko yàgg nemmee ci yeneen yi. Euh, waaw léegi pour suivi bi ñu weesu. pour suivi bi ñun dañoo yàgg wax ne comme ñi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéey bi bari wuñ bari boobu. nañ jël ay volontaire de la consommation ah. maanaam ay xale yu góor ak yu jigéen yi nekk ci quartier yi jàng ba pare te defuñ def contrôle bi sur le terrain. dañ leen di waaw dañ leen di fay. su ko defee ñoom ñu mun a euh, jàppale. Mm. ñi nga xam ne ñooy agent assermenté yi nekk euh, ci service de répression des fraudes ak ñi nga xam ne ñoo yore contrôle économique ci li nga xam ne moom mooy biti euh, direction du commerce intérieur. Mm-hmm. léegi nag bi ñu ko waxee président tam d' accord na ci nee na dina recruter mille jeunes. Mm-hmm. yoo xam ne dinañ mën a jàppale ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy contrôleurs yi. su ko defee ñu mun a dénoncer képp koo xam ne yaa ngi jaay prix bu normalul ci li nga xam ne mooy mbir mi donc loolu bokk na ci mesure yi nga xam ne pour que ñu mun a gën a appliquer li nga xam ne ah. hmm. ci loolu euh, bi nga xamante ni euh, président Macky Sall président da ko moo ko présidé ni ki samedi hmm. euh, jël nañ ci ay ndogal bokk na ci wàllu loyer bi hmm. loyer bi nag ñu ne ñi nga xamante ni dañ daan fay Euh, lu toll ci trois cent mille francs mhm. wala li nga xamante ni moo ko gën a néew ñoom dinañ am réduction de vingt pour cent ñi nga xamante dañ daan fay euh, trois cent mille ba jàpp cinq cent mille mhm. réduction de dix pour cent mhm. mais ñu bëri tamit euh, jàpp ne ñu ni mel néew na ba tey te bëri na ay bailleurs tamit yu nga xamante ni d'accord ñu ba tey ci boobu la bees waaw effectivement xam nga dégg nag ci benn ci nga ni mesure boobu dinañ ko tàmbali ni ki njeexitalu fin mois de novembre bi ñu nekk waaw ndax ñu euh, ngi finaliser décret bi su finali suñ ko finaliser rek dañ koy publier mu applicable donc euh, ci début mois de décembre bi maanaam fin mois de novembre mm. loolu mooy li nga xam ne moom lañ programmé pour l'instant léegi li nga xam ne moom moo ci nekk mooy euh, bailleurs yi seen bopp dañuy fàtte ne ñoom commerçant lañ xam nga buñ fàtte ne commerçant lañ dañuy jàpp seen xel ne waaw dafa mel ni comme su fekkoon ne ay bàyyi defal yàlla lañ alors que en fait ay commerçant lañ dañ yore benn produit bu ñuy jaay. Mm. produit bi ñuy jaay lan mooy le service de location. nit ki boo ko luwee kër amatoo droit dugg ci biir kër gi sa laaju la sa laajoo avem mm-hmm. kon mënatoo wax non sama kër la dëkk nangam non. Mm-hmm. donc tant que comprendre wuñ loolu. Mm-hmm. duñ duñ fonctionner ni ñu war a fonctionner. commerçant bi dem gis borom kër goo xamante ni dogu ma la kilifa gi da lay ko neex mu ne salaamaaleykum ca kër ga boo duggee nga génne ko moo tax nit ñi moom mhm. moom kër gi de mën ngeen dëkk premier nga dëkk rez-de-chaussée amul droit dugg sa biir appartement te yow joxoo ko joxoo ko autorisation man de am naa ci am koo xamante ni këram da ko def yëpp ay caméra de surveillance euh, la locataire yi di dund yëpp ma ngi koy gis ku dugg xam na ku génn xam est-ce que loolu tamit am na ci am nañ. na def euh, caméra de surveillance dans les lieux communs mais mënu ko def si biir appartement jàmbur. non def ko ci biir appartement yi mais bu nekk na ko. waaw entrée lieu commun yi c' est une question loolu daf ko war a déclarer te saa yu xëy ma nga toog jàkkaarloo caméra <laughs> da ko war a ko war a déclarer. réew mi daan neex euh, a déclarer non loolu moom mën na ko def mais da ko war a déclarer. Euh, commission des données de la protection des données personnelles. Mm. parce que booy installé li nga xam ne moom mooy caméra de surveillance da ngay dem def déclaration ñu jox la benn papier. Mm-hmm. loolu loolu la yoon wax. d'accord mais mm-hmm. pour en revenir fi nga taxawal. waaw location yi. Mm-hmm. Euh, li ci nekk mooy biñ ko xayma parce que ñu bari dañoo comprendre lu waral wàññi bi effectivement wàññi bi nga wax bon faible na boo koy seet parce que dañ ne vingt pour cent ci koo xam ne yaa ngi fay ba trois cent mille. mais xam nga kuy fee trois cent mille bu ñu la wàññilee vingt pour cent soixante mille la quand même c' important bu ñu desee jënd saako ceeb. jënd ci mm-hmm. diwlin quand même c' est quelque chose d' ko nar a et en même temps yeneen wàññi yi day ñëw en appoint donc finalement c' est beaucoup d' yoo xam ne yéen a wàññi euh, donc dëgg la effectivement vingt pour cent xaw na tuuti par rapport ak euh, li yi yokkoon ndax yaa ngi fàttale ko bi ñuy def premier wàññi bi dañ constaté woon ne bailleurs yi li ñuy euh, dépensé pour tabax kër pour fay banque beeg yooyu dafa yokk woon de quarante quatre virgule quatre pour cent ah waaye ñoom li ñu yokk quarante quatre pour cent li ñu constaté mais dañoo yokk deux cent cinquante six virgule zéro six pour cent xam nga ko yokk deux cent cinquante six pour cent ah nga waroon a wàññi deux cent deux cent pour cent au moins. mais yow ñu ne la wàññi vingt neuf pour cent à l'époque ngay indi coow bi pas vingt pour cent rek lañ leen laaj te ñi nga xam ne wàññiloon nañ leen bële pas te fekk ne ñu ngi continuer di bénéficier wu ci wàññi boobu ñoo ñu ñooñu yokkaluñ leen ñooñu wàññiluñ leen kon donc bailleur bi mënul wax comme dañ ko singli wala dara bailleur bi mënul wax ne Euh, dañ ko dañ ko bëgg a dañoo bëgg a rey entreprise am. wala dara muy sukkandiku mooy. Hmm. nga xam ne tabax dafa cher. waaw ah. des fois sax ñenn dañuy dem def benn prêt bancaire. Hmm. tabax seen immeuble. loué ko pour mu cee génn. waaw maintenant dans ce cas foofu la ñuy waxee ni selon ñoom li nga xamante ni ñoom loolu lañ dépensé. Hmm. yenn wàññi dina arrangé. waaw mais xam nga dafa am erreur bu ñuy ñoom. dañu bëgg a amortir seen investissement ci kër en cinq ans wala en dix an alors que kër minimum investissement bi nga soo ko defee yaa ngi koy amortir ci vingt ans jëm ko kon soo ko dire su fekkee da ngaa ay prix parce que da ngaa bëgg a rembourser en cinq ans wala en dix ans da ngay fixé prix yoo xam ne dafa ëpp taux de rentabilité bi nga xam ne moom nga war a donc loolu moo tax ñuy def ñoom toujours erreur da nga gis nit dëkk ci benn kër dix ans quinze ans fay kër gi fay ko ba fay remboursement kër gi totalement te la rek. donc looloo tax il faut. comme ñu ko loolu en quelque sorte day xaw a nekk tuuti arnaque. voilà lay doon parce que daf lay laaj loo xam ne euh, en dix ans di ñaari yoon kër gi. Mm. facilement. mais lu ma ci euh, jaaxal euh, su Assome jaata annoncé woon nañ fi wàññi mm. njëgu loyer bi. ba waxoon sax ni léegi caution yi. bu waree nekk 4 mois 2 mois ngay joxe. mais ñu gis ni euh, lu ni mel euh, bailleurs yi jafewuñ ko. est-ce que bi est yoon yi tamit dina jafe. dina yomb ci yéen tamit pour ñu jafee ko. waaw bii parce que tamit yoon xam nga état dafa jàng ci jafe-jafe yi amoon ci li nga xam ne mooy location bi jafe-jafe yi ñett la woon bokk na ci benn boo xam ne euh, dañ gis ne état dafa absenté woon moment bi nga xamee ne ci lañ defoon wàññi bi. soo amee jafe-jafe amul fenn fooy dem ci état. pour ñu lijjanti ko. dëgg lu ministère du commerce à un moment donné mais c' était pas ça. Mm. donc ñun ASCOSEN ñoo daan traité entre huit mille et douze mille cas de contentieux chaque année pour ay problème location diggante locataire bi ak bailleur bi. léegi nag bi ñu gisee ne loolu bokk na ci li tax mbir mi sooxe ñu proposé ne nañ taxawal benn kuréel goo xam ne moom loolu rek lay liggéey location fii la ñu waxee ne dañuy taxawal. commission nationale de régulation des euh, du du loyer et des activités immobilières nga xam ne. nekk ci biir ASCOSEN. déedéet euh, loolu état moo koy. créé état moo ko créé. Mm. donc dafa décret bi def nañ ko bind nañ ko ba pare euh, li des rek mooy finalisation pour que ñu mën koo publier avant fin du mois pour que. mu àndaaleeg baisse des loyers bi. d'accord léegi te lu ni mel dina gën a mën a dimbali askan wi. voilà ndax mhm. ñoom ñoom da ngay ñëw ci ñoom ñu traité ko. Mhm. et en même temps ñoom ñooy xool ndax njëg yi jaar na yoon et tout sax ñooy fixé prix loyer yi ni ñu koy calculer. Mhm. yu mel noonu donc liggéey bu am solo moom mooy mooy commission bi. ndax tamit numéro vert bi ñu teg. Euh, mu ñeel denrée. même numéro vert boobu également. dafa valable ci ci loyer yi. maanaam lépp loo xam ne prix la boo xam ne dañ ko wàññee. jëmale ko ci di concertation yi nga xam ne moom lañ jokkee mun ngaa woote ci numéro vert bi comme ça ñoom ñu ñu topp topp ko. d'accord mais ba tey ci concertation bi. Mm-hmm. Euh, bailleurs yi certainement amoon nañ fa ay mais ci loolu andi tey ji tamit état. Mm-hmm. lan la fas yéene gunge leen euh, moo xam ndax dañoo fas yéene gën a wàññi euh, ciment bi ak yu ni mel. waaw de fait ñoom bailleurs yi ñi nga xamante ñi ngi nekk seen construction mi ngi nekk en cours ñu mën cee ñu mën cee gis seen bopp. Mm-hmm. mais également lan la leen état fas yéene gunge. su ko defee peut-être ñoom ñu mun a euh, fay seen dette ñu am ci banque yi nga xam jël nañ fi ay prêt pour tabax seen bâtiment mm-hmm. vu que ni ñenn ñu waaye ngee ñoom du leen gën a am na ay accompagnement yoo xam ne commission yi proposé nañ ko euh, yoo xam ne mu mel ni ay wàññi yi nga xam ne mooy par exemple fer à béton wàññi nañ ko état wàññi na ko donc euh, yi nga xam ne moo jëm ci enregistrement yi droit d'enregistrement yi wàññi nañ ko pour que ki nga xam ne moom mooy mm, bailleur bi am tuuti lu xaw a teggeeku ci moom mais il faut comprendre que cinquante deux virgule cinq pour cent ñiy luye ay kër euh, nekkul ñoo xam dañoo leb banque wala dañoo ko tabaxal seen bopp dañ ko doon cinquante deux virgule cinq pour cent ñi nga xamante ne bi ñoom am na deux virgule cinq pour cent yoo xam ne dañ leen may ay kër comme ça par exemple nga nga am soxna may ko kër yu mel noonu donc boo jëlee téeméeri nit yu am kër yu nekk di ko luwe juróom fukki ak juróom xuloowu ñoo maçon dañ dañ dañoo tourné rek kër gi ñëw seen loxo léegi nag su ko defee euh, ñooñu xam nga mënuñoo mënuñoo wax ne dañoo leb banque wala ciment bi dafa seer kon njëg yi tolloowul ak li nga xam ne moom la ñuy annoncé ne moom lay coûter waaw loolu moom c'est une réalité loolu tax bokk na ci li tax ñu ne nañu wàññi njëg yi. waaw seen dogal bi euh, yaa ngi rappelé que ni euh, njeexitalu novembre. jàpp li nga xamante ni mooy début décembre mhm. euh, ci lay effectif maanaam ñëpp dañoo a sàllar bi leen dogal ku demati di louer nekkoon ci benn kër di mhm. fay lu toll ci trois cent mille war nañ la wàññil loolu pour cent mhm. ñi ni nga xamante nag bëgg nañ dem louer ji ñoom it nañu jàppaloo seen xel te xam ne bu ñu demee it war nañ ko war nañoo wàññi njëg bu baax a baax mais ci loolu nag ci wàññi bi yéen préfixe bi rek ngeen wàññi caution yi nag lu ngeen ci wax. waaw léegi caution yi xam nga bu njëkk dañ nga daan ñëw pour nga dugg kër dañ lay laaj ay quatre mois. Mm. léegi ñun li ñu wax mooy ne caution bi ci boppam boo koy fey da nga koy fay sur 12 mois da koy fey ci noo xam ne. une partie dañ koy étale ak mm. commission d' agence yi yëpp danañ ko wàññi ba nga xam ne nit ki buy dugg peut-être que ay un mois et demi rek lay joxe. Mm. loolu yëpp pour fexe daal ñu gën a alléger. li nga xamante ne moom mooy. en tout cas location bi grand cher na. Euh, yow yow yaay suñu njiit ñu consommateur yi xam nga lu ñuy dund. chaque jour nga jot ay plainte. dëgg la donc metti na. Mm-hmm. des fois da ngay gis sax benn kër nit dëkk fa du fa yàgg sax mu génn fa. exact parce que li muy fay. du ko attan dëgg la léegi day dem ba ci biir obligé génn pour utiliser leneen. léegi bokk na ci lii indi jafe-jafe location yi sax mooy néew doole ci néew ñi néew doole parce que ki nga xam ne day am jafe-jafe pour fay régulièrement xam nga du laaj àqam parce que moom li nga xam ne mooy yelleefam da ci am jafe-jafe euh, da ngay gis ñun am na ñoo xam ne biñ biñ fexe ba wàññi location bi ne vingt neuf pour cent da ngay gis koo xam ne cent mille la doon fay war a fay soixante onze mille donc am économie vingt neuf mille mais dafa wax bayoram ne ko non wàññil cinq mille kese te moom vingt neuf mille lañ ko war a wàññil mais moom lu mu ci jublu mooy won ko ne ko ah man kat yoon jox na ma vingt neuf mille waaye man teguma la ko pour que moom itam en bu yéexee fay bu ko waa ji teg donc pour montrer que euh, da ngay gis situation yu bari yoo xam ne li koy waral rek mooy néew doole ji moo tax gaa yi duñu réclamer. mais ku mel ni man tey jii su ma doon loué. Mhm. Euh, ma ñëw dem ci benn bailleur. Mhm. te xam ni état may na ma mu wàññil ma ci njëg li. Euh, lu toll ci vingt pour cent. Mhm. bailleur bi bañ ko su ma wootee ci numéro vert yi. ay bañ dem ca yoon. c'est ci am dëgg doonte ni moom. kër la wala bien sûr yaa yaa ci am dëgg. parce que mënul wax ni sama kër loolu ma neex laa koy loué. ndax yoon dafa wax depuis 1977 ne kër nii lañ koy xayma soo ko xaymaa ba trouver cent bu la neexee nga luyee cinquante bu la neexee nga luyee gën a fii cheré ko sa Côte d'Ivoire waaw xam nga lu tax mm. parce que fii euh, euh, suñ mbokk yi dañoo daw jógee ca kaw gi ñëw fii di ut fuñ dëkk mm. fii nekk benn presqu'île bu xat beneen bi mooy ñi ñu wër ñëpp dañoo am ay jafe-jafe seen dëkk yi ndax dafa am ay ay problème yoo xam ne ñii ñi ngi xeex fii ñi ngi xeex fii ñenn ñu bari dawale seen njaboot indi leen fii ñoo ñooñu dawale seen njaboot ay ñu am koom lañ maanaam ñu am xaalis lañ su ko defee bu ñëwee fii dinañ mën a fay lu seer te comme demande bi dafa bari eh, ñi nga xam ne dañuy fay lu day tax mbir yi di yéeg ndax dañuy jàpp ne war nañ ko mun a yokk ndax dinañ ci mën a am nangam. Mm. loolu moo bokk ci li nga xam ne mooy expliquer ni njëg yi seeree fii ci ci réew mi. Mm. mais teguwul ci ci ci loo xam ne. Euh, coût bi moo yokk moo tax mu mu seer. mais grand nag loolu moo tax nag logements sociaux yi état annoncé woon amoon ci solo. exactement ñu bëri amoon ci yaakaar. lu mm. nu mel ba tey day sociaux yi euh, am na cent mille yu ñu mais demande bi pour nga mun ko réserver il faut ay ay ay milliers et des milliers et des milliers de de de de, de logements yoo xam ne bu génnee nekk prix bu yomb. non gars yi nee nañ logements sociaux yi. Mm-hmm. nekk ci nguur bi ci boppam ñoom ñoo ko séddoo. waaw léegi ñoom ñu ngi sant yàlla moom laay expliquer xam nga tey ji bu fekkee ne yow da ngaa war a jël benn logement ñu wax logement social ñu ne par exemple logement bi dañ ko war a louer à cinquante mille ou su fekkee léegi yow ki nga xam ne moom mooy bénéficiaire bi ki bi kii bénéficiaire logement dafa dem jël ko di ko waat loolu moom moo utiliser ko dëkk ci bi mu nekk logement social pour moom mu jël ko di ko louer day indi beneen spéculation donc objectif logement social bi dootul atteindre d'accord donc loolu tax il faut ñu nekk vigilant très bien très vigilant pour que ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yu nekk ñoo xam ne réellement ñu ko war a ñu ko yelloo la. d'accord ci loolu également euh, ba tey euh, ni ki samedi dogal yi nga xam jël nañ ko bokk nañ ci tamit wàññi njëg yi. ci mhm. lu ñu mhm. euh, pour xale yi. mais mais nag yi mooy dañoo bàyyi ba rentrée bi jàll ñu doog a annoncé yooyu mesure te fekk ñoom sonn nañ ba noppi. waaw en fait bàyyiwuñ ba rentrée bi jàll maanaam. ñun bi ñu waxee président ne ko daal vraiment kii ne le temps ñu jël affaire yi après lañ dugal lépp lu ñu war a wàññi mais idée bi mooy d'abord nañu wàññi léegi nag après ñu ne nag euh, li ñu war a wàññi yépp mooy li nga xam ne moo caqaamu Sénégal yi location bi dund ko cher gi. mais d'accord nga ak man que ni frais euh, waroon nañu. waaw sax sax waaye lu ñuy wax frais de scolarité bokkul ak frais d'inscription. waaw mais frais de scolarité yi ñu ngi daw ba léegi. te koo xam ne yow da ngaa waroon a fay par exemple dix mil par mois xam nga su dee neuf mois la quatre vingt dix mille. am na koo xam te ne lépp a métti ci moom frais d'inscription dafa métti ci moom. scolarité dafa métti ci moom waaw mais xam nga xam nga euh, maanaam comme fay nañ frais d'inscription passé na ba pare dafa am lu ñuy wax frais de scolarité. frais de scolarité yi mooy li ngay fay yëpp. boo ko dajalee nag foofu nag da muus président Macky Sall foofu dafa muus parce que peut-être buy allégé ni buy allégé ménage yi. Mhm. allégé parents yi également. Mhm. Euh, euh, ndogal bu ñeel euh, wàllub éducation xale yi peut-être sax mënoon a jiitu li nga xamante ni sax mooy denrée yi. waaw dama lay expliquer vu que ñu ngi doon jëm ci ci bi. déedéet dama lay expliquer xam nga dafa am lu ñuy wax frais d'inscription mais frais d'inscription ci frais de scolarité la n'est-ce pas booy jàng da ngay fay inscription fay mensualité waaw loolu yëpp boo ko boole mooy frais de scolarité. waaw ñu ne frais de scolarité yi wàññi nañ ci dix pour cent comprendre nga boo jëlee inscription boole ko ak li ngay fay. mensualité dañoo xaar ba xale yi commencé jàng grand na ñu nga xamante inscrit nañ seen bi dina mesure bi dina appliqué wu ci li nga xamante ne moom seen seen seen. seeni ma jox la ma jox rapport ak ñi nga xamante ni chaque mois dañuy fay ci yenn écoles yi. waaw ki nga xam ne chaque mois day fay moom affaire bi taarul ba tey. waaw loolu laa wax. xamante ni nag moom moom boo moom si comme par exemple si école ne soo ñëwee fa des frais d'inscription ngay joxe blouse ak yu ni mel ak yooyu waaw léegi kooku nag murid moom foo mu xaar ba déwén pour mun koo pour pour mun koo pour mun cee jëriñu waaw mais xam nga <laughs> gisu man gisuma dara loo xam ne matal na lépp gisuma ko gisuma ko te li nga xam ne moom lañ wàññi boo ko totalisé ci koo xam ne yaa ngi dëkk dakaar di loué di fay cent cinquante mille par mois am fukki bant yoroo oto li nga xam ne moom mooy économie yi su fekkee boolewuma ci frais scolaires yi maanaam diggante dund gi location beeg ceeb diwlin suukar meew yeeg ñoomiñ seen yooyu dina la dikk quarante six mille sept cent cinquante yoo xam ne bénéfice la minimum mm. boo xam ne chaque mois dina dugg sa kees c'est boolewuma ci yeneen yi boolewuma ci ciment boolewuma ci euh, produit yeneen yi nga xamante ne bi nekkul produit yoo xam ne ci lu ñuy lekk la directement. kon wàññi boobu am na solo. Euh, waaw ah. mais euh, wàññi boobu am na solo. te nag boo amee doom joo xam ne mu ngi université di fay université privée di fay un million cent mille lañ koy wàññil immédiatement. mais ci loolu grand da nga ko wax léegi ne wàññi ba am na solo mais bu ñu hmm. jëlee opposition bi doon te ni ils sont contre l' état et tout. Hmm. mais ñoom it fësal nañu ay xalaat ba pare ñenn ki ñoom jàpp ni ñu mel waa Pastef yi keroog gis nañ seen conférence de presse ñu jàpp ni wàññi yi ngeen wàññi ci denrée yi dafa néew lool. dëgg li ma lay expliquer. xam nga nee naa foofu xaw ñu dëgg. déedéet waxuñ dëgg ndax jox naa la exemple yow da ngay fay location cent cinquante mille ñu wàññi la waxuma la nag ñuy fay parce que location cent cinquante mille sax léegi bareetul léegi location yi ay ay ay trois cent lañ lay wax bu dee bu dee am nga dix personnes. facilement ay trois cent mille trois cent mille dinañ la wàññil donc soixante mille mhm. plus boo ci boolee yeneen yu sew sewaan yi rek di nga dem presque cent yoo xamante ne bi euh, dinañ la ko yokkal ci sa salaire mhm. ci sa ci sa revenu boo ti am mhm. ñu ne loolu tuuti na ah, nga am doom buy jàng université ñu wàññil ko cent mille francs ci scolarité ñu ne loolu tuuti na ban réew nga dégg ci àddina bi Sénégal bi nga xamante ne dama lay wax infrastructure yi nga ni ñi ngi koy euh, ñi ngi ci ak yi nga xamante ni ñi ngi ko dëgmal milliards yi nga xam ne ñi ngi koy dégg di ko ci éjecté tout le temps est-ce que du foofu la ñuy sukkandiku pour wax ni euh, li ñu wàññi ci daara li ñu wax néew na parce que amaana yooyu la koppar ko dugaloon ci li waaye dina gën a loolu waxi politicien am doole réew yi développé yëpp prix yaa yokk réew yi àddina bi yëpp ngi yokk réew ci àddina bi su amee nañ ko wax boo xam ne mi ngi def politique di wàññi prix yi au moment nga xam ne ci lañ toll ci àdduna bi yëpp yeeg prix yi Sénégal rek laa gis réew moo xam ne mu ngi koy def xaj na am na yeneen réew mi dégguma ko. est-ce que et puis moment que tamit du xaw hmm. nekk tuuti stratégie. na na na Sénégalais bàyyi bàyyi wax yooyu xam nga yooyu moo tax réew du avancé. Hmm. moment bu ñu ko mënti wàññi. nit ñi sonn nañ sonn boo xam ne ñu ngi xaar wàññi bi. dëgg la loolu rek moo am solo. ndax wàññi politique la waaw ma nekk wàññi politique euh, président bi du politique lay def. war naa mën a wàññi politique su bëggee nit ñi ànd ak moom bu def li ñu ko nit ñi di xaaree loolu lay politique di kon loolu c' est des faux c' est des faux débats. mais ndax lu am solo mën na sous-entendre que ni. Mm-hmm. troisième mandat la bu ko neexee bëggu troisième mandat. bu ko neexee bëggu cinquième mandat ma ne. soo xoolee Sénégalais yëpp bëgg mandat kenn ku nekk da nga bëgg a su opposition lan la dañoo bëgg mandat. moo tax nit ñi yàgg nañoo jooy njëgi charte bi ak euh, euh, nu mu méttee. si mhm. ménage yi ñu def comme si dégguñu ni donc ñu bàyyi ba euh, échéance présidentielle bi. xam nga xam nga dafa am lu gars yi di xam nga dafa am lu nit ñi di. ñu wàññi njëg yi ak gouvernement bu yees. bu ko neexee bu ko neexee population yi ñoom xooluñ loolu li ñuy xool mooy ñun sonn nañ. ci situation bii nga xam ne moom la dundu dund njëg yi seer na na ko wàññi su ko wàññee pour def politique ñun xooluñu li ñu xool na na ko wàññi ndax tey jii ñi ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo réew mi dafa am loo xam ne moom la réew mi di xaar ci ñoom. mooy hmm. mu seen problème. d'accord heure bu ñu ko gestoo nag na ko gestu. d'accord looloo am solo. kon grand yow ci tënk ànd nga ci troisième mandat su ko président bëgg. ma ne bu ko neexee mu nekk troisième mu def troisième candidature mais xam nga dafa am loo xam ne dafa mel ni. dafa mel ni nit ñi dañoo yàpp Sénégalais yi parce que mënoo mënoo muusa ko waane ba nekk président te Sénégalais yi faluñ la. dëgg la xaw ma ndax ñooñu ñaa ngi déglu constitution bi ñuy wax Sénégalais yi ñoo ko fal ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko voté kon li neex Sénégalais yi mooy am su Sénégalais du du def troisième mandat du def troisième mandat. mais yow rek la comme lii ñuy wax yi wax. mais yow mais yow personnellement. yow hmm. man man man man man. mais troisième mandat législative yi sax defe naa bëggoon waaw ah waaw mais euh, du mouvement politique bu ma am ah, mais ba tey ci camp présidentiel bi nga bokk moo tax ma lay bu la neexee nga am déet ci troisième mandat man bokk ma Benno Bokk Yaakaar waaw je sais bokkoo ci amoo ci bu buggee def candidature bu buggee def candidature su ko neexee na def candidature mais Sénégalais yi ñooy décidé. boobaa yow di ko soutenir yow personnellement ak sa mouvement <laughs> mouvement jugul pour soutenir kenn. d' accord ñun suñu mouvement moom pour défendre les consommateurs. grand nag bëgg naa nga àtt balaa ngay dem. Mhm. Euh, sur l' affaire Pape Alé Niang. Mhm. parce que tamit actualité et qui également nga xamante ak kii di. Pape Alé Niang voilà. Mhm. Euh, naka nga gisee tey ci arrestation. alors man li ma gisee ñaari yëf la rek c' est euh, soo defee lu yoon tere yoon day dal sa kaw. su fekkee yoon bi ni ñu ko tëralee baaxul nañ demandé ñu changé lu yoon parce que ñun sénégalais ñoo defar yoon loi yi ñoo koy vote mais bu ñu tëralee waa ne fii sens interdit la ku fi jaar ñu dal sa kaw soo fi jaaree bu ñu dalee sa ko waruñ wax non non nañ la bàyyi parce que ñun ñoo d'accord ci loi boobu c'est simple que ça dafa am texte yu wax ne waroo génnee lii waroo siiwal lii boo ko siiwalee yoon dal sa kaw. mais le droit à l'information bi askan bi am. waaw mais Ah, liberté la liberté la liberté s'arrête là où commence celle des autres est-ce que jàpp nga ne liberté de la presse war na wala liberté d'expression war na tax ma lay saaga ndey damay laaj rek ñun ñaa ngi saaga su ba ma ngoon ay ñoo xam ne defuñ leen dara ñuy seetaan kenn waxul nañ leen jàpp ñooñu di défendre naan tey jii nii liberté de la presse ñooñu waroon nañ taxaw ne ku saaga ndey nit <laughs> comme saa war na lay dal sa kaw. ndax loolu xaaral dañuy waxtaan rek. ñaari mbir yu bokkul la gën a. damay expliquer. xam nga yooyu yëpp liberté la. Mm. xam nga am nga liberté critiquer am nga liberté wax sa xelaat mais amoo liberté saaga nit pourtant ñu ngi koy def ci benn dëkk ma benn journaliste bu jóg ne loolu pourquoi saaga yi. amee ah, parce que ñi nga xam ñoo koy def euh, làqut seen ginnaaw euh, téléphone wala seen machine seen di saaga loolu ñoom ñoom la concerne maintenant état waxoon na question donc donc duñ koy jàpp pourquoi ñu war ko euh, damay toxal ko tamit yóbbu ko si ko taal damay laaj benn question rek Julian Assange bi mu génnee ay documents classés yu États-Unis du dañ ko dañ ko jàpp damay laaj wala démocratie la dañ ko jàpp moom dañ ko dàq mu daw dem làqatu ji ay année dañ ko jàpp noonu. yow en que président de tous les consommateurs. non damay mi bokk wax dëgg man damay wax dëgg rek. te yàlla tax Pape Xaale am naa ko xam naa ko je l'apprécie beaucoup on a de très bons rapports jote wuñ dara mais dama ne la soo xamee ne yoon lii lay tere soo ko defee yoon dal sa kaw. su fekkee nag ñun jàpp nañ ne suñu yoon boobu c'est c'est liberticide wala c'est contre la démocratie wala nangam nañ proposé ñu modifier ko. waaw mais moom moom li nga xamante ni sax yow loolu ngay wax nii. Mm-hmm. loolu lañ ko jàppee mu nekk motif bi nga xamante ni également. c'est ça loolee lañ évoqué. Mm. Euh, mais ñi ngi dégg suñu ay confrères waa CAP yi sax. Mm-hmm. def ci barki dem sorti mm-hmm. ni ñoom ñi ngi découvrir que ni Pape Alé bi ñu koy entendre sax kenn entendre ko ci affaire yeneen mbir yu yàgg lañ ko toppee. waaw xam nga c' est pas parce que yàgg na. loolu lu muy tekki. parce que c' est pas parce que yàgg na parce que ñun ñooy wax li ñu koy toppee comprendre ku nekk wax ne nii nangam na koy toppee. non cest à bu fekkee da nga arrêté. soo defee dara euh, recette ak yu ni mel. Mhm. ko toppee euh, pouvant saper notre ak yu ni mel. loolu xam nga accusation yu grave la. waaw maintenant bu fekkee da nga da nga woo nit ki kay. Mhm. je pense que nit ci boobu la mbir kese nga ko war a. nga ko war a entendre parce que du du du journaliste mooy wax juge nan la war a. ab détention arbitraire la. déedéet détention arbitraire mooy ku deful dara su fekkee def nga dara ñu ne yaa cinq ans su fekkee c'est pas prescrit war nañ laa mën a poursuivre. non mais journaliste bi nga xamante ne grand mooy a jàppee ni moom. non est-ce que liggéeyu wax lu dul dëgg. non dama lay laaj. ba yàq dëri nit. xam nga loolu bokkul. xam nga da ni le journalisme en général. mais mhm. euh, ku bu ci nekk am na pàcc. moom c'est un journaliste d'investigation. non damay laaj ndax journaliste d'investigation. kon ci xoolam la nekk. ndax journaliste d'investigation dafa war a bind loo xam ne amut. non moom bindul. déedéet damay laaj rek. dafa publier li nga xamante ne mooy bind ko wala wax ko ci télé wala wax ko ci rajo wala wax ko mooy publier. est-ce que journaliste d'investigation war naa publier lu amul. non mais am journaliste d'investigation am na droit tey gi jox ko dara. mu jël diwli ko maintenant xam nga source na laa jox loo xam ne baaxul. waaw je suis d'accord avec source mun na laa jox loo nga xamante ne amul. léegi na su boobaa boo publier loolu nga baaxul xam nga da ngay ay nit tort. mais ci cas de figure bi ba tey wax nañu wax na cas de figure am na waaw am déet mais dugg na ci dossier bi mais par exemple nee nañ moom moo wax ne général Moussa Fall dafa am immeuble six milliards ça c'est faux nga xam nga loolu diffusion de fausse nouvelle su fekkee sa source daf laa nax jox la information bu baaxul yow de bonne fois nga publier ko da ngay am problème. mais wax na ko te kenn jàpp ko ci saa si. ko jàpp ko chargé ci bëgg ko chargé ci bile dossier. damay laaj est que koo xam ne yoon nee na amoo droit wax lu amul te yow nga nekk journaliste. est-ce que kooku soo ko defee yoon war na laa topp waaw wala de man question boobu rek laay laaj su dee yoon war na laa topp mu topp la ca bur bi su ko waxee wala mu topp la 15 jours après wala un mois après tant que prescription amul yoon war na laa mën a topp su fekkee nag jàpp nañ suñ suñu yoon boobu noonu ñu ko xa tëralee baaxul et que c'est liberticide à ce moment là nañ plaider pour ñu changer dama lay jox benn exemple waxoon naa maître Ablaye Wade boobu il n'était pas encore président ma ne ko yéen chaque année ngeen ngeen marche ñu leen jàpp ñu leen dóor te euh, loi bi mu ne article l'interdit de manifester sur la voie te yéen jéemu leen jéemu leen a xeex loolu mais chaque fois yéen a ngi manifester ñu leen di réprimer moo tax ba mu nekkee président la mu njëkk a def mooy ay consacrer ay liberté de manifester comprendre nga donc su problème amee da ngay xam fan nga koy attaqué mais doo gis ne loi bii lii la wax ku jaar fii ma dal sa kaw nga ne non naa fi jaar ñu ne tax nga ne non parce que waruñ ko aaye non est-ce que xel nangu na loolu Pape Alé sama xarit la on a de très bon relation en tant que moom mu nekk kuy liggéey ci presse bi man ma nekk acteur public mosuñ xuloo ci benn yenn yoon. mais quand même ñun journaliste yi. fekkee ne da teg loo xam ne. man moom maa ngi lay invité nga ñëw ci combat bi. Mhm. nga ñëw ànd ak ñun. non man damay combat loo xam ne c'est conforme ak li nga xam ne moom la teg si wax. kon dañuy parce que nekkuloon ci woon. ndax yoon moo ne amuloo droit def naa nangam soo ko defee ba pare man du ma ñëw taxaw ne non euh, duñ la laal c'est-à-dire que loolu xel nangu ko sax journaliste waru taxaw ne su fekkoon ne deful dara ñëpp war a taxaw ne deful dara d'accord su fekkee ni def na yaa quelque temps ñu bàyyi ba quelque temps ñu indi ba tey def na dara d'accord su fekkee ne nag li nga xam ne moom la def li ñu koy reproché baaxul nañ changé loolu d' accord euh, également ci actualité bi euh, gis nañu garde rapproché Ousmane Sonko yi euh, jamono ji ña ngay àttu ca bureau juge ba. Mhm. boobu la mbir également certainement yëngu ko man gis. waaw xam nga ay ku la dóor xam nga nit bu la waxee mbëllee nga dóor ko ba mu bu ko gaañ ko dañ lay jàpp loolu yoonu ko wax c' pas parce que waxoon naa la que war nga maa dóor ku ko def yoon da lay jàpp. c' déjà clairement dit précisé et am na ñu ne waxoon nee nga. dóor nga leen gaañ nga leen mais dañ lay jàpp parce que yoonu ko. mais nag ñoom garde rapproché assurer sécurité assurer assurer day fekk boobu ñoom ñu am ay blessé ñu gaañ leen ak yooyu. à waaw loolu ñoom bu ñu demee ci kanamu juge bi ñu ñu ñu plaidé bu ñu ci kanamu juge bi ñu plaidé ne ñun lii mooy suñuy preuve waaye yoon nee bu. bul dóor bul gaañ bul fajal sa bopp man yoon maay faj soo fajalee sa bopp yoon day dal sa kaw même buñ la tooñee donc léegi su fekkee ñoom am nañ preuve ne légitime défense la amul benn problème eh, yoon da leen di jàpp ba pare nañ ñu àtte àtte bi nag mooy yow lu tax kii nga dóor ko ba gaañ ko nga ne moo ma jam xeer fii moo ma dóor fii moo ma nàngam fii man itam ma fay ko war yàlla def mu gaañu ci mais loolu tam du la ci génne day wàññi kii mais doomu aadama dafa précis ba nga xam ne képp koo xam ne da dal ci doomu aadama yoon day dal sa kaw nit bu dawalee oto tey ko sax mbëkk nit mu gaañu dafay daf dañ koy jàpp koo xam ne tey ko jógul pour gaañ ko jógul pour dara waxuma la nag bu ko reyoon kon yoon moo wax loolu c'est-à-dire cest man Sénégal muy dëkk boo xam ne mun ma comprendre nit di di réfléchir soit suñu yoon baaxul su soit suñu yoon baax na suñu yoon bu fekkee baaxul ñun moo ko voté su fekkee baax na ñun ñoo ko voté. opposition bi dañuy gis ni dañoo jàpp ne justice ñëw mënumaa ñëw yaa ngi dégg ñu ma parce que damaa sàcc ñu ne noonu lu tax ñu may jàpp parce que dix personnes sàcc nañ jàppuñ leen loolu du wax loolu benn façon réflexion la te xalaataatal sa bopp bu wax kon dootuñ jàpp benn sàcc ndax amul benn réew moo xam ne amul ay sàcc yu fa ja sàcc rëccal ah, donc. xam nga li moo tax li moo tax li ñu naan da nga jege parce que yaa ngi protégé ma wax la dara man dëgg laay protégé loolu laa gëm je peux me tromper mais de bonne foi comprendre nga dëgg rek laa wax mënoo jàpp sàcc bi mu ne la non doo ma jàpp parce que dix personnes sàcc nañ jàppoo leen est-ce que loolu xel nangu na ko. wala da nga maa jàdd fii yoon bi ma jàdd yoon bi. Mm. nga arrêté ma ma ne la euh, non dix personnes jàdd nañ yoon bi arrêté wu leen pour que nga may arrêté. loolu nag la waxi Sénégalais yi di wax te loolu élite waru koo wax. Euh, grand ça a été un plaisir recevoir la euh, tey xam naa ni euh, sa jot ma ko waaye ñëw nga mm. donc ma la ciy remercier bu baax à rappeler que ni c'était à l'instant Euh, votre émission 13 de vérité ak suñu grand moment Ndao njiital association des consommateurs du Sénégal le mot de la fin. le mot la fin daal mooy nañ góorgóorlu ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam c'est très important. mais dañuy perte temps trop ci ay xuloo ay xëccoo ay saaga ay yoo xam ne amuloon réew mi kii su dee jàpp nañ ne kii nga xam ne mooy diriger réew mi nit ñi ànd ñoom moom nañ voté wàcce ko comme loolu la suñu constitution wax ne nañ voté nañ vote mais ay wax ay saaga ay kii yooyu c'est pas ça le truc c'est simple que nañ comprendre ne daal li nga xam ne moom mooy yoon bi nga xam ne ñun ñëpp d'accord nañ ci nañ ko respecté dëkk bu amul yoon jungle lay doon yoon wi nag mun na bañ a baax bu boobaa nañ def lobbying def tout pour ñu changer ko mais bu ñu xesee ne mais boo demee réew yu organisé yëpp yoon ba duñ ko discuter boo brûler feu dañ lay jàpp amul négocier fii da ngay brûler feu ñu jàpp la nga ne pourquoi waa ji jàpp la su la waa ji jàppee di la laaj kayit nga ne lu tax mu la koy laaj ak nii mu la tax ñee romb laaju leen ko mm. donc réflexion yooyu ñuy réfléchir te ñi koy def nekk ñoo xam ne ay ay ay intellectuel lañ mm-hmm. ay ñoo xam ne jàng nañ alxuraan wala jàng nañ arabe wala jàng nañ français wala jàng nañ anglais euh, loolu moo tax suñu réew mi de des ginnaaw ba léegi waaw am na solo grand lay remercier day mm-hmm. di la ñaanal jàmm yow sama grand fu ma la ñëw wuy si ma bu baax baax di remercier également la ak Touti ak it euh, Niang Junior pour la coordination à la rédaction de Sénégal 7 yi nga xamante ni Euh, lundi euh, ba vendredi yéenay safoo suñu ay programme mais également week bi yëpp ci yeneen plateau yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ñu leen ci remercier tout le temps euh, ci seen fidélité di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro 13 minutes de vérité d'ici là portez-vous bien jaa ngeen jëf